wanfacna bima callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di Mouhamed Bachirou Cissé mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñu deñ sant yàlla buur bi tabaraka wa taala mi may xéwalu jaamu yàlla yañ doon jëfandikoo ci ginnaaw tuuti ci waxtu su néew te mooy keroog ba noddukat bi noddu di yëglu ci jàkk ji mu naan assalaatu xayrum min an nawm képp ku ko buri yàlla jàppandalal bi nga dégg noddukat bi muy noddu la nga xamante ne mooy la muy yëglu ci askanu jullit ñi di leen naan julli de moo gën nelaw ba ngeen nekkee képp ku ko yàlla wërsëgal ba nga ko war a mën a fekkee ba nga war a mën a teewee béréb ya ñuy joxe waxtu woowu xamal ne yàlla wërsëgal na la xéewal bu toll ni yaay ki dund keneen ku dundut loole képp ku ko yàlla man loo benka fekke ñu ne yow la yàlla wërsëgal wërsëg boo xamante ne keneen ku yow teeweewul béréb boobu ndax waxtu woowu da di waxtu bu secret da waxtu bu am dayo waaye du ñëpp a koy teewe ci béréb ba ñuy woote kon bu la ko buur yàlla yombalalee yow mi dégg noddukat bi muy yéglu ne julli audience rencontation ba ngeen war a am ak seen borom waxtu ba jot na te moo gën nelaw bi ngeen nekkee nga daldi jóg ndànk ci sa mbàjj nga daldi waajalal sa bopp waaye nga génn sa kër sëq ab jéego ba tax danga nga war a dem wuyu la nga xamante ne mooy lañ lay woo ñu ne yow yaa am yow la yàlla may xéewal ju toll ni ki ko deful ba tax na Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bañ leen di amal ci waxtu wi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala mi ñu may xéewal ba toll ni ñu dem joxe waxtu woowu ci béréb yañ koy joxe ñu di ko ñaan yal nañu yàlla nangul loolu ñu doon joxe ci waxtu su néew ci ginnaaw te mooy julli yi fajar lañ ci jàng ci alquran yal nañu ko yàlla bindal xasanaat fil mizan yal nañu ko yàlla defal suñu téere jëf waaye lañ si doon jaamu yàlla yal na ko yàlla sellal yan na ko yàlla nangu mu defal ñu ko xasanaat fil mizan amin ya rabbal alamin ngénneel ya nekk ci waxtuy fajar yan nabu ñu ko yàlla xañ yal nañu ko yàlla wërsëgal ñu manqee ko mu doon yiw ba ñuy xaar keroog yawma laa yanfau maalan wala banuunan illa man ata allaha bi qalbin salim yal nañu ko yàlla defal keroog bés pénc bés la bi nga xamante ne doom du njëriñ wuy jur alal du njëriñ borom alal ana la fay njëriñ nit ki mooy képp ku dikkee fa yàlla ànd ak xol bu laab bu ñu xol laab nag mooy teg sa jëmm tënk sa bopp fépp fu yàlla joxoñ waaye mu doon la yonent bi jàngale nga géem a sore tere yi sa kémtalay kàttan si tënk lii bokk na ci xalbun salim mooy xol bu laab yal nañu ko yàlla yombalal amin ya rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seen njaboot xam ngeen ne ñu ngi ànd ak ci waxtaanu fajar suñu tem ba nekk ci ngeneelu xam-xam wala ngeneel ba nekk ci sàkku xam-xam te yàlla dogal na ren ji jàngukaay tàmbali nañu di dalal ndongo daara yi taalibe yi waaye école yi dalal nañu ña nga xamante ne ñooñu ñoo fa war a dem ngir sàkku ji xam-xam su ko defee njëriñ ba nekk ci sàkku xam-xam la fa yàlla joxoñ tegtal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngëneel ba yàlla waajalal képp ku yore xam-xam nga di ko joxe ci anam ba mu gën a selle ci anam ba mu gën a jékkee ci anam ba mu gën a ñoŋe ana lu lay xaar keroog bés pénc sa digganteeg sa borom waaye doy na rek ñu ne yonent bi joxoñ na ci waxtaanu démb bi ne yàlla suñu borom bu namee ci bi yiw da koy xamloo diini islaam ba tax na ñu ngi yemoon ak yenn képp ku sóobu ci sàkku xam-xam képp ku takk laxasaayu nara sóobu ci yoonu sàkku xam-xam ana la la fa yonentu bi dig démb waxtaanoon nañu ko yéen ci loole waaye ana la la malaaka yi di teeroo ba léegi nag ñu war a wéyandi la nga xamante ne moo des ci xadis bi yéen a ngi fàttali ko suñu waxtaanu démb yonent bi nee na ña nekk ci kaw asamaan di ay malaaka dañuy jéggalul yàlla sàkkukatu xam-xam di taalibe bay sàkku xam-xam waaye ña nekk ci suuf tamit dañuy jéggalul yàlla taalibe bay sakku xam-xam waaye yonent bi ne xatta alxiitaanu fil jën ya ci biir géej gi ñoom dañuy sàkkul yàlla njëgal sàkkukatu xam-xam mu teg si ne wa inna fadlul aalim ala al mu ne ñu ngénnil ba boroom xam-xam am ci kaw ba jaamukatu yàlla ka fadlil qamar ala saairil kawaakib dafa mel ni na weer bi gënee yeneen bidiw ya ngay seen ci kaw melokaan bég misaal bi dimb ñu leen ko doon joxoñal kon tey ndem sob na suñu borom subhaanahu wa taala fas yéene nañoo wëyandiki yéen ci mennum hadis boobu ñu war see toftal la yonent bi ne xam leen ne boroom xam-xam yi kat ñoo fi nekk di wutu yonent mu ne ñu xam ngeen ne yenentu yi kat ñoom de du xaalis bu ñu naan diinaar moo leen wuutu waaye du xaalis bañ naan dirham moo leen di wuutu waaye lay wuutu yonent yi ci kaw suuf si mooy xam-xam moo ne képp koo xamante ne jàpp nga ko jàpp nga ci lu dëgër jàpp nga fu wuur xadis bi ibnu maaja moo ko solo waaye albani wéral na ko mbokk yi ñan na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu ne woon démb ñu ngi yemoon ak yen wa inna fadlul aalim alal aabid ka fadlil qamar ala saairil kawaakib yonent bi nee na ngénneelu boroom xam-xam ci kaw jaamukatu yàlla dafa mel ni na weer wi génnee yeneen biddiw ya ngi séen ci kaw ñu ne weer wi boo séenee ci kaw jaww ji boo ajee sa bët ci jaww ji di nga weer wi mu ne fàng mooy gën leer yeneen biddiw ya ngay seen ci côté ñu ne weer bi mooy gën leer biddiw ya ngay seen ci wetu weer woowu waaw di nga gis biddiw ya weer wi waaye ñoom seeni leeraay du fés kom leeraayu weer wi kon la weer wi génnee yeneen widéo yi noonu la boroom xam-xam bi génnee jaamukatu yàlla bi ci askan yonentu bi ne sallallahu alayhi wa sallam inna al ulamaau hum warasatul anbiya inna al anbiyaau lam yurisu dinaaran wala dirhaman innama yurasul ilm fa man axadahu axada bi xaddin wafar rawahu ibnu maaja wa saxahahu l albaani mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ka yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima mooy baaxee askan bi melokaanu wi nga xamante ni noonu la boroom xam-xam bi meloo ci biir askan ba mu nekk di dund par rapport ak keneen ku moom ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa moo ngi nii di ñu tegtal di ñu joxoñal melokaanu boroom xam-xam na mu génne ci askan bi par rapport ak keneen ku moom moo ne mu ngi mel ni weer bi ni mu génnee yeneen biddiw yi ci leeraayu asamaan si boo xoolee ci kaw jaww ji di nga gis weer bi ne fang boo xoolee ci kaw asamaan si di nga gis weer bi muy manifesté wu nu mu gën a leeree waaye yeneen biddiw ya wër ñoom seeni leeraay day des du ñu matale leeraayu weer bi dañu du ñu mat comme weer bu nu mu leeree noonu la boroom xam-xam bi mel ci askan ba muy dund par rapport ak keneen ku dut moom yonent bi daal si teg ne wa inna innal ulama xam leen ne boroom xam-xam yi de hum warasatul anbiya ñoo fi nekk di donn yonent kon bu yonent bi ne boroom xam-xam yi ñoo fi donn yonent yi kon yonent yi dañoo xam xam-xam baleen yàlla jox ñu nar koo partager askan baleen yàlla yónni kon képp ku di boroom xam-xam ci xam-xam ya yonent yi indiwaale nga am loo si gànnaayoo ñu ne yow yaa fi nekk di donn yonent yi ci xam-xam ba ñu jëlee fayal moo tax yonentu bi ne ñu inna al ulamaa hum warasatul anbiya xam leen ne boroom xam-xam yi de ñoo fi doon yonent yi buñ ne boroom xam-xam yi fi doon yonent yi nag boroom xam-xamu alquraan ak boroom xam-xamu diine islaam ñooñu ñooñu tax a wax yonent bi ne ba léegi boroom xam-xam yooyu nañu xam ne inna innal anbiyaa naka yonent yi de lam yu urisu diinaaran du xaalis ba naan diinaar moo fi nekk di leen donn maanaam xaalisu seefa donnuwul boroom xam-xam yi xaalisu dollar donnuwul boroom xam-xam yi xaalisu euro donnuwul boroom xam-xam yi waaye xaalisu diinaar donnuwul boroom xam-xam yi ñi fi nekk di donn boroom xam-xam yi du kenn du lenn du ñenn lu dul boroom xam-xam yi moo tax mu ne innal anbiyaahu na ngeen xam ne yonent yi lam yuurisu diinaaran du xaalis bu ñu naan diinaar moo leen donn du xaalis bu ñu naan yeneen xaalis yu ñu leen tudd du loolu moo war donn yonent yi yonent du xaalis moo di donn moo tax yonent ne yonent bi salaa sallam ne innal anbiyaa yonent yi de lam yu urisu diinaaran wala dirhaman du xaalis bu ñu naan diinaar moo fi nekk di donn yonent yi du xaalis bu ñu naan dirham moo fi nekk di donn yonent yi kon du xaalisu euro wala dollar wala CFA moo war a donn yi déedéet du xaalis moo war a donn yonent yi waa ana lu war a donn yonent yi ku ko bëgg xam nag ñu may nopp ci waxtaanu fajar bay di jaar fii di ci réew mi fm 97.5 mbokk yi yonent bi ne innama yurisul ilm li fi nekk kat mooy yonent yi la leen di donn ak ña leen di donn ak ka leen di donn du xaalis du dirham du diinaar waaye la leen di donn ak ña leen di donn ak ka leen di donn ñooñu ñooy boroom xam-xam yi moo tax mu ne ñu innama yu urisul xam-xam boroom xam-xam yi ñoo fi nekk di donn yonent yi alayhim salaatu wa azka taslima yi du daray poñitum àddina moo leen di donn lay donn yonent yi fi yàlla yónni yonent yàlla muhammad nee na du dara du ñenn du kenn lu dut xam-xam yi kon boroom xam-xam yi xam leen ne ña ngeen donn ñoo ñooy ña yàlla yónni ci kaw suuf si ñooñu ñooy consulat ba yàlla yónni ci kaw suuf si ñooñu ñoy ambassadeur ba yàlla yónni ci kaw suuf si ñooñu ñooy yonenti yàlla ñi bu fekkente ne yonent bi nee na boroom xam-xam yi ñoo donn yonent yooyu kon nañ ngeen xam la ngeen yore lu mu doon na ngeen xam la ngeen donn lu mu doon na ngeen xam ña ngeen donn ñu ñu doon su ko defee ñu xam neexaayu xam-xam ñu xam valeuru xam-xam ñu xam cafkay xam ci xadis ba ñu yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ba tax na mu nañu ci ñeexantalu xadiis bi fa man axadahu axada bil xadd képp ku ko tiir nanka téyee téewin bu dëgër boo xamante ne doo nangu mu rocceeku doo nangu mu wàññeeku doo nangu mu réer ndax ndono dafa foor képp ku fi donn sa wuyjur bu góor ci lankat donn doo bëgg mu réer ci sa loxo képp ku donn fii ab kilifa walla ci béréb doo nangu nga am fa way wu ñaaw képp ku donn li nga donn doo nangu nga di si ñaaw ba mbokk wolof yi nee nañu mujj si pusu mu réel sa loxo kenn ku nekk war nga kaa bañ ci sa la nga donn waaw diw sangam de fii la jaar puso biñ ko donnloo def na ci wëñ fas na ko da doon ñaw diggante yi da doon ñaw lu nar a xotteeku da doon ñaw lu nar a xaajaloo waaye yow tey nga ñëw donn puso bi ñu ne foo ko teg nga ne réer na kenn ku nekk war na kaa moytu ci li nga donn ci askan ba nga bokk waaye noonu lañuy ñuy déggee tamit boroom xam-xam ya donn yonent yi war nañoo war a mën a bañ a am woy bu ñaaw ci lañu donn ci yonent yi moo tax yonent bi nee na innama yurasul ilm lafi nekk ak ña nekk di donn yonent yi du ñu ñenn du lenn lu dul boroom xam yi ak xam-xam ba tax na yonent bi nañu faman axadahu képp ku jàpp xam-xam woowu axada bil haddin wafar nang ko jàppee jàpp bi nga xamante ne doo nangu mu wàññeeku doo nangu mu réer doo nangu mu yàqu xadis bi ibnu majja moo ko génne waaye albaani wéral na ko rahimahumullahu rahmatan wasia mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ba léegi bokk na ci xadiisu abi hurayrata radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal ida maata al insaanu inqataa anhu amaluhu illa min thalaasatin illa min sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bih aw waladin saalihun yadcu lah rawahu muslim mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xadis bañ naan moom la ñu yëkkati sànq saxaabi bi di abi hurayrata radiallahu anhu moo ko génnee nee na naka yonentu bi sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee nañu doomu aadama de bu làqoo doomu aadama bu faatoo doomu aadama bu génnee àddina moo tax mu ne ida maata al bu doomu aadama bi faatoo inqataa anhu amaluhu bépp jëf ba mu doon jëf dina dagg dina arrêté dinañu taxaw illa min thalaasatin lu dut ñetti jëf yaa bi bëgg a wax ni ñetti jëf yooyu duñu taxaw duñu dagg dañuy continuer di ko fekk foofu mu nekk ñetti jëf yooyu yonent bi nañu illa min sadaqatin jaariya lu dul sarax bim fi bàyyi nit ñi di ko jëfandikoo képp ku jëfandikoo ci sarax woowu yiw ba ci ruus day fekk kooku jëfandikoo sarax woowu day fekk ki jëf sarax woowu fii mu bàyyi ko fi da koy fekk foofu mu tëdd ñu ne sarax boobu mënees nañoo wax ne tabax jàkk gasteen installe forage ak li ni garab ak li ni képp ku jëfandikoo liñ fi bàyyi nit ñi di ko jëfandikoo képp ku ci njëriñoo yiw boobu dalay fekk foofu nga tëdd yonent bi ne ñaareel bi mooy aw ilmin yuntafau bihi walla xam-xam boo fi bàyyi waxtaan ya nga doon waxtaan téere ya nga bind jàngale ba nga doon jàngale walla nga bàyyi fi xam-xam boo xamante ne doomu aadama yi war nañ ci war a mën a niitoo war nañ ci war a mën a bénéficier war nañ ci war a mën a njëriñu ci seen dund àddina ak seen dund àllaaxira xam-xam boobu nga fi bàyyi ñu ne képp ku ci am njariñ bam ci jëfandikoo yiw boobu dalay fekk yow mi xamle xam-xam boobu fii ci àddina ñu ne xam-xam boobu dalay fekk foofu nga tëdd ci sa bàmmeel ñetteel bi yonent bi salaa sallam ne ñu aw waladin saalihin yad'u lah wala nga bàyyi fi doom ju baax woo xamante ne danga xamal xam-xamu alquran nga jàngal ko xam-xamu diine ak njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa keroog bi nga diddoo ñu ne goone googu saa yi mu tëralee loxoom ci diggante yërmande yàlla mu naan allahumma xfirli wa li walidayya yàlla nga ma jéggal jéggalaaleel sama ñaari wiijur allahumma xfir lahuma warxamuhuma yàlla nga leen yërëm kama rabbayaani saxiira comme nuñ ma yërëmee nuñ ma yare bi ma nekkee tu tànk doom boobu noonu tàllal loxoom ci diggante yërmande yàlla muy ñaanal ñaari waajuram ñu ne kooku lépp lum la ñaanal yàlla dala koy jox foofu nga tëdd daa mel ni ke la yónnee SMS neena na SMS boobu daal ndegem di nga ko recevoir fii ci sa téléphone ci dundu àddina wi noonu la mel keroog képp ku yónnee SMS ci wéyjuram noonu la ko yàlla di ko joxe ne ko sa doom mooy kala ñaan bi yàlla soppil la ko mu doon njéggalaa koor ba ngay dund foofu fa nga tëdd wala yàlla suñu borom soppil la ko mu doon xéewal bam lay xéewalal foofu nga di ko dund walla mu soppil la ko la nga xamante ne mooy ki xam lam la koy defal ndax moo xam la génn fa yow ci béréb boobee mu defal la ko mu doon doom bi nga xamante ne yow wayjur bi yaa ko jàpp yóbbu ko ci école ba muy jàngee alquran yaa jàpp loxo doom boobu ne ko jàbb jox ko sëriñ soo xamante ne moo koy wax qaala allahu qaala rasul mooy ki koy jàngal yàlla nee na yonentu bi nee na mais na nga doon wayjur bi nga xamante ne di nga xemmem ci sa doom mu am xam-xam boo xamante ne keroog boo fi jógee ko mu doon ambassadeur boo xamante ne mooy taxaw ci sa ginnaaw mu di la ñaanal yàlla maghfira di la ñaanal yàlla rahma di la ñaanal yàlla sabaat di la ñaanal yàlla duxulul janna di la ñaanal yàlla tawfiqun min allah nga bàyyi fi doom boo xamante ne mooy kalay ñaanal yàlla njéggal mooy doom ba ñaanal yàlla xéewal mooy doom bi lay ñaanal yàlla dugg arjanna waaye mooy doom ba lay ñaanal yàlla nga am piix ak jàmm ak salaam foofu nga tëdd waaye dafa fekk ne nga jël doom woowu dugal ko ci sàkkukaayu xam-xam boo xamante ne fa lay xamee la ñuy ñaanal ñaari waajur yi waaye boo jëlee sa doom dugal ko ci njàngum àddina kese rek kot kepp loolu musiba gën a ëpp loolu danger gën a ëpp loolu dañ ne musiba gën ko koo rëy danger gën a rëy loolu catastrophe la waaye nag du ñàkk am ñoo xamante ne dinañu ne waaw ko jël sa doom dugal ko ci sàkkukaayu xam-xam boo xamante ne ñaari yëpp lañuy jàng nag ñu ne la loolu tane na waaw loolu tane na loolu tane na waaye nag xadis bi la fi yonent bi joxoñ mooy képp ku yàlla dénkatu tànk xooloo cofeel ba nekk fa moom xooloo neexaay ba nekk fa moom ndax gënu koo bëgg yàlla génnoo bëgg sa doom yàlla dangaa def sabab nga am ko waa yàlla mi la ko jox yàlla mi ko dénk te bañ na ko sax dénk la wax wa wasaynal insaana bi waaliday maa dénk doomu aadama ñaari wéyjur waaw dénk la ko yàlla tuddee dénk waxut ne maa ko jaay ndax léegi-léegi doomu aadama lu mu jënd da ko da siy puuka waxut ne maa ko may waaw léegi doomu aadama luñ ko may boo ci naree conditionné mën na laa wane ne du yama ko may waaye bii yàlla nee na maa la dénk kon moo moo ko de waaw moo moo ko yàlla nee na maa la dénk ñaari waajur kon sa waajur yooyu moomuñu la dama lankaa dénk dama la dénk ñaari waajur kenn ki yaay kenn ki baay waaw bu dee xale bu jigéen la nga nuroo yaay bu dee xale bu góor la nga nuroo pàpp ci mbindin waaye yàlla nee na moomu ñu la de moomu la dama la kaa dénk na rafetal jëmmale ko si ñoom kon ñoom it rafetal ba ñu war a jëflante yow tuut tànk bi mooy ñu xamal la yàlla woobu mooy kan yàlla mu mu wàccee alquran kañu ko jàngal mooy kan te moo doomu aadama bu ne boo dundee ba dund bi sotti nga nar a génn ci dund bi war a dund xayaatul barzaqiya lañ lay laaj ci sa bàmmel mooy yaa abdallah man rabbuk yow jaamu yàlla bi ana kuy sa borom ana kan mooy sa borom bokk na ci ñaareelu laaj bi mooy yaa abdallah wa man nabiyuk ana kan moo doonoon sa yenanti bokk na lañ lay laajee abdallah ma kitaabuka ana moo doon sa téere bokk na lañ lay laajee abdallah wa ma diinuka ana lan moo doonoon sa diine kon quatre questions yi kenn ku nekk fii nga war a def épreuve bi préparer réponse bi ba keroog nga di ko mokkal nga xamante ne boo duggee si examen bàmmel ñaari professeur ñëw di la laaj question bu ñu ko naree joxoñ buñ ko naree melale ñu ne mooy question fermée yaa abdallah man rabbuka allahu rabbi yaa abdallah man nabiyuka muhammadu nabiy yaa abdallah ma kitaabuka alquranu kitaabi yaa abdallah ma diinuka alislaamu diini yow jaamu yàlla bi ana kuy sa borom nga ne yàlla mooy sama borom yow jaamu yàlla bi ana kuy sa yonent nga ne muhammad mooy sama yonent ñu ne yow jaamu yàlla bi ana moo doonoon sa téere nga ne alquran mooy sama téere yow jaamu bi yàlla bi ana moo doon sa diine nga ne islaam mooy sama diine kon ndegem école lañu nekk fii ci dund àdduna ñuy jàng di jàngale na ñu géem a ñu géem a xam lañ ñuy dicté su ko defee bu ñu wàccee ci classe ba ñu naan bàmmeel ñaari professeur ñëw tiim ñu di ñu laaj question ñu war ko war a mën a tontu nu mu gën a yombe yan nañu ko yàlla yombalal yan nañu yàlla sax ci diine islaam ñu ñaan yàlla suñu borom di ko ne allahumma allimna ma yan yanfauna bi ma allamtana wa zidna ilman wa qul rabbi zidni ilman mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñuy tas xibaar ñuy ni taxaw ñu war leen jëbal bërëb bi saa iliina mawla jalla wa ala an yaj'alana min alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an